salaamaaleykum mbokku internetu KSTV Sénégal nuyooti nañu leen ziar leen tey nag nee nañ leen final bi du yomb ruq yeeg ruqaat di fépp lañ leen di dugal tey ñi ngi Médina fii buntu RTS. fi gars yi di seetaanee li nga xamante ne nii mooy final bi waaye dañu fekk si monsieur le maire mu di Bamba Fall di maire Médina ñu daal di dem nag eh, ci monsieur le maire nuyu ko rek ziar ko waaw xaritu ñëpp ah <laughs> monsieur maa ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax sax. léegi yaa ngi direct KS TV Sénégal nga nuyu waa KS TV mbokk internet. maa ngi nuyu mbokk internet yëpp nag di nuyu supporteru Sénégal yëpp di nuyu ñëpp daal. Mhm. waaw tey noo dundee final bi tey. di waajal a gañe rek ak waajal jubilé lu yàlla nar def lu mu nekk xéewal yàlla na ko yàlla moo tane monsieur le maire nag dem na foog ñu laaj la ko ndax mënuñoo jàkkaarloo ak yow te dugaluñu politique tuuti ñu gis Medina ñu la bëggee tey ngay xëccoo Medina yëpp àndandoo ak yow ne monsieur le maire mii moo ñuy jiite waat yow loolu lan la la def sa diggante yow mi xam nga yaa ngi ma fekk bi ngay ñëw kenn téyewu la ma garde du corps gisoo ma sécurité ma jaxasoo ak ñoom loolu kese mooy secret bi du leneen kese la loolu daal yow ni nga jaxasoo ak Medina du leneen am naa accessibilité ci ñoom mu ngoog yaa ngi wax ak ñoom di ree ak leen ñoom loolu rek la yan kàddu ngay yóbbante waa Sénégal. maa ngi encouragé télé bi encouragé seen internet yëpp di ñaan yàlla jàmm am ci réew mi te Sénégal jël ndam li tey. amiin monsieur le maire.